ko mujj dëpp finalement parce que ñoo guñu woon ci draft bi mais bon puisque j'ai j'ai une équipe de production assez speed c'est des américains y a pas de souci euh, on va revenir sur ça euh, parce que bii euh, bëgg naa ñu ñëw ci naka lay demee draft bi taxawaayu góor gi si jàmm mais d'abord yegsem États-Unis comment ça s'est passé xam nga man bu ma ñëwee Amérique mhm. dafa dafa dafa reetaanlu moo tax mhm. man bu ma bu ma jógee fii xam nga bi ñu ngi woon Sida ah, man avant ma ne Amérique d'abord dama demoon man tubaab bi dañ ma sonaloon ku si ñëw rek da nga may bëgg a yóbbu nga jox ma national. fii Thiès. waaw ta boobu yaa ngi saint de dieu mm-hmm. Saint Saint Gabriel. Saint Gabriel ok waaw. Saint Gabriel ku si ñëw rek da nga naan ah comme comme Allemagne yi bu ñu ñëwee fii ñu ni waa léegi dañ lay yóbbu Allemagne ñu jox la ñu wutal la passeport wutal la lépp nga nekk foofu. Mm-hmm. ma Assane ni ma non doo dem. Mhm. moo ko ci Idi ni ma non doo dem. j'imagine parce que da nga yàkkamti nekk booy ñu lay proposer ay visa. ñu dem sa bi di ko jëndee cinq ne ah non non doo dem. ñu ñëw ah, ñu dem Italie et équipe commencé Assane ni ma déggoo lu ma la wax yow. sa baafu ne da ngay jàng da ngay dem jàngi après nga dem NBA. est-ce que finalement jàppewuloo ko ku iñaan. parce que boo gàttee que Assane xam nga tey nit ki. bu la yéenee rek da nga ko xam te man gëm naa ni foo nekk sa wërsëg ne la fekk. mais patience bi xale ak fugam amu ko de c'est-à-dire. ci yow peut-être. Euh, yàlla bu la bëggee dimbali. Mhm. day muur bëtu nit ñi ba yoon bi ngay jaar. nga ko gis xam nga. Mhm. donc man lu tax yàlla def ma ma wóolu Assane noonu rek moom moo ko xam. Mhm. Assane lu mu ma mus wax rek musuma si teg baat. xam nga dina mel ni Sadio Mané ak Bakary jiital na ko fan yi boo bëggee invité saajo mu ne la contrat fi signé man yàlla am na moom kay suñu international yi yàlla leen ay nit yu nit yu souple teris yu yi vraiment donc moom ab Bakary la mi fi ne rek saajo maane bu ñëwee mu jiital ko Assane bu góor gi ñëwee mu jiital ko après nous même waxuma sax rêver d'être comme saajo ou góor gi on rêve même de devenir Bakary ou Assane parce que dañ leen di côtoyer baal ma léegi léegi bu ma bu ma demee ba dem euh, ma dem basket ba Without Borders mhm. xam nga Sud NBA day organisé benn camp bi am Afrique du Sud mhm. xam nga sama may temps mën naa la expliquer lépp su fekkee nga. am nga temps y' a pas mm. <laughs> voilà. d' accord mm, mm. léegi xam nga c' est c' est c' est c' est libre. ok xam nga NBA dafay organiser benn camp bu tudd basketball without borders. Mhm. basketball sans frontières. léegi dañuy dañuy recruter soixante africains yi gën a yi ñu yaakaar ne ñoo gën a aay. Mhm. ñu boo yóbbule Afrique du Sud. Mhm. ñu organiser camp bi léegi équipe bu NBA yi ak entraîneur NBA yi. Mhm. général manager yi. joobuur leen di yóbbu. waaw joobuur waaw. <laughs> j'entends toujours ah. <laughs> léegi ñu ñëw. <laughs> léegi bu ñu ñëwee léegi ñooñu ñoo ñuy entraîner. léegi nag bon bu ma nekkee foofu premier jour benn paa moo fa nekkoon mu tudd Olga. Olga allemand la woon. léegi mu ñëw man nag avant may dem foofu amoon na benn. benn afri américain ak italien moo daan entraîné fii si Sud. Mhm. kenn ki mu ngi tudd Patrick keneen ki mu ngi tudd ah, Roberto Carminati. Mhm. mooy italien bi. Mhm. léegi nag bu ñu demee ba yegg Afrique du Sud ñu yegg si rek Patrick ak Roberto ni leen am na sama benn boy boo nekk fii mais booy bi su ngeen ko gisee da ngeen xam ni kii joueur NBA la. ak agent bi ku ne ni ah. quel âge quel âge. boobu 2008 laa dem 2000 2008 lañ dem foofu. Mhm. léegi mu daan ni mu daan ni ah booy bi sénégalais yi dañu kii daal dañu dañu nooy. Mhm. ne loolu mooy réaction mu leen non kii exception la si di ngeen ko gis. Mhm. léegi bu ma ñëwee ñu dem première fois pat euh, olgo dox sama wet ne ma eh kaay ma ñëw mu daan ni ma yow yaay góor gi ma ne ko man la kay ñun ma ñëpp ne nañ fi yaa nekk MVP camp bi. man ne ko waaw man maa nekk MVP camp bi. man mm-hmm. ma soo nekkee MVP camp bi man maa lay yóbbu Allemagne ma entraîné la te doo fay. Mm-hmm. man ne ko d' accord mu ñu shake hand daal maanaam nuyoo bi mooy gentleman agreement. Mm-hmm. bu loolu amee mu kii. marché conclu léegi nag ñu dem si camp bi. ma nekk MVP bi. bi ñu paree bu ñu paree léegi ñu daal di ma lekk léegi organiser ma comme maa diggoon loolu moom mooy mooy entraîneur Dirk Nowitzki léegi après grand Gallo Gallo moom xam nga moo ñu yor ñun ñëpp waaw. galo moo ñu yor ñun ñëpp léegi mhm. galo na ma ne léegi dama bëgg nga dem foofu nga entraîné ak Olga nga gën a work on sa skills bala ngay dem feneen daal mhm. foofu laa demee nag may jàng sànni mais li ngay wax ni Afrique du Sud la xewee la xewee après ma ñibbisee Sénégal ma def fi mhm. deux jours si laa dem Allemagne mais pas pour entraîner kese ma dem Allemagne ma jógee Allemagne ma ñibbisi ma dem Italie pour entraîner tamit xam nga basket bi dafa dafa wutee basket américain ak européen bokkul bokkul léegi nag ma jàng yooyu yëpp après léegi mais de Amérique nag ma ah, ma am école boo xam ni dañ ma toppoon foofu muy muy Huntington Prep mhm. fa Huntington laa dem West Virginia la nekk ma demee maa ngi ne ah su ma demee Amérique dinaa am lépp du ma manqué dara mhm. léegi sama sama yére yi sama dàll yi lépp ma may ko booy bu may dem daal benn saag mu ma topp amul dara sama ay tuani moos nekk mooy papier bi wane ne damay jàngi mhm. ak sama passeport. Mhm. leneen topp ma Pape moo bu ma wàccee foofu nag ma toog si aéroport bi ma xaar xaar xaar maa ngi xiif nag entraîneur bi ñëw. boobu boo xoog mag ñi fa nga jëm sax dafa sori wàccoon New York demoo sans cesse demuloo fa ay Sénégalais bëri mi Virginia. waaw amul kenn léegi nag ma wàccee foofu. Hmm. maa ngi xiif léegi ma ñëw rek entraîneur bi ñëw dégg ma anglais nag. xam nga. Hmm. tuuti espagnol laa doon wax italien. Hmm. xam nga français bi tuuti. léegi bu ma wàccee coach bi ñëw ni ma am Rob Fulford am your head coach maanaam ma toog di ko xool rek ndekk boobu dama doon ni ma man maay Rob Fulford maay sa maay sa entraîneur mm-hmm. moom comme xam naa dama xiif mm-hmm. xam nga xiif moom ku ne danga ko wax mm-hmm. mooy xool ko ba jàgg ma ne ko eh am hungry <laughs> bëgg dee weexu <laughs> ma ne ko eh am hungry <laughs> mu toog ba jàgg mu dugg ma oto mu dugg rek mu sànni benn mbuus mbuus bi amee hamburger ak yooyu dawal nañ presque trente bi muy wax may lekk <laughs> comme dégg ma lu muy ma ne du ma si bàyyi xel muy wax rek may lekk ma <laughs> bon bu nekkee foofu <clears throat> ma ñëw nekk Huntington bu ma demee Huntington nag bon ma ñëw nekk ak ay quelques booy foofu booy premier jour yóbbu ma yére yóbbu ma dara mhm. premier jour suma booy bi mandi toj verre sama fenêtre bi mhm. xam nga mu ngi def ay négatif tuwan mu ngi sedd bi amal ma sàngo lekk toj sama verre nekk mhm. am si lu ma lu ma sàngu ma tëdd rek. Mhm. Euh, demoon naa ba jour yoo xam ne Pape Cheikh fu nga xam ne xam nga foofu ku nekk bopp sa bopp la. Mhm. Euh, wallaahi dama doon jël popcorn ah. Mhm. su ma jëlee popcorn bi ma ma ma suba gi. ma lekk ko noonu dem entraîné ji popcorn kese. le soir ah, dem naa popcorn bi safatul dara si man léegi dama si def xorom. pour mu saf tuuti nga lekk ci waaw boobu ana galafaal ak mag ñi nga fi bàyyi ñu yóbbu la ñoom daan nga wax ak ñoom téléphone xam nga tey xam nga tey daan la wax defal lii voilà foofu la ñuy waxee jom mhm. xam tey gars yi bu ñu la yóbbee defal lépp doo xam li nga am mhm. te yaakaar naa foofu la jamono toll mhm. nit ñi dañoo am lépp moo tax apprécié ñu lu ñu am xam nga gàllo mu yónnee ma xaalis du dara si moom tey ñu ma woo sama papa mu yónnee ma loolu yaa fuus la parce que sama papa dama dem doon dama wuti dañ ma yónni yàkkamti ma mhm. xam nga waruma dem da foofu di ko woon naa ko noo dama manqué ndox dama manqué dama manqué laa xam nga mhm, mhm. ku woo say waajur sonal nga leen donc man loolu du woon sama affaire ma ne du ma mus a woote ni dama soxla lii wala dama bëgg lii ma nekk foofu xam nga di ko lijjanti ba mu leer ma teg ko si yoon mooy commencé nekk di basket nag États-Unis nag ñu commencé ma xam après si laa jóge foofu ma dem université bu ñuy wax University of Louisville foofu laa nekkoon collège ma nekk fa three years pare moom ma daa dem si draft bi après nag si laa retourné. Mhm. continuer doon def ay études pour. am draft bi moom lañ doon xool nii. voilà mhm, mhm. après nag si laa retourné parce que xamoon naa ne may jógee fi waxoon naa sama papa ni ko ak lu mun a xew dinaa am samay diplôme. donc comme NBA teel na ma soxla te école parewul ma dem mais sama objectif moo doon comme li ma waxoon paa bi dinaa yàggale sama jàng. ma yeggale sama jàng. bi ma nekkoon NBA maa ngi ko ne def sama étude. nga jàng. ah def naa sama sama major mu ngi nekk communication. Mm-hmm. communication laa laa am am naa diplôme en communication. def naa xam naa jàng naa international business. Mm-hmm. Ah, instant bi nii maa ngi def sama master. Mm-hmm. Ah, si liberal study daal xam nga liberal study moom dafa nekk loo xam ni. Ah, tënk na lépp daal après mm-hmm. su moo amee master boobu mun naa mun naa def lu lu ma lu ma neex daal. mu ngi mm-hmm. dépendre si si si man. Mm-hmm. bi nga demee foofu nag côtoyé jamono ji jour yu am niveau yi.